voilà ñu am mbégte encore une fois ñëw euh, di leen euh, euh, dégtal kenn koo xamante ni également toujours ci cadre sunu émission yi nga xamante ni dañ koy faral di amal ayu bés bu ne muy wax ci lu yaatoo yaatu ci wàllu politique société économie ak lépp loo xamante ni soxal na doxalinu réew mi tey nag ñu am gan gu spécial jóge fële ci pencum ndaw réew ma ndaw également euh, ñu xamé ko bu baax à travers ses interventions pertinentes yi nga xamanteni parfois daf koy def yo xamanteni ñu bari dinañ ko saluer également euh, mu doon ko xamanteni euh, dina yëngu lu bare bare bare ci li nga xam mom modi walu volontariat tay dañuy am mbégte dalal suñu gan di Mariam Soda Ndiaye Mariam Soda Ndiaye di également ki nga xamanteni mom moy mooy la coordonnatrice du niveau au niveau donc de de Revocap mais coordonnatrice spécifiquement ci walu sensibilisation donc moom moo yor pôle sensibilisation au niveau de de de Révocap ñu koy euh, dalal fii ci Dakar Actu ci kër gi Mariam Soda Ndiaye ñu ngi lay nuyu. waaw Sadibou maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di nuyu aussi bépp téléspectateur Dakar Actu ak ñëpp ñuy suivre euh, émission bi di l'entretien ñu am mbégte bu baax. Mm-hmm. ñëw fii fas yéene waxtaan ak yow ci mbirum euh, société birum économie mbirum politique mais surtout birum volontariat engagement citoyen mhm. ak tamit sama liguey bi nga xamné mang koy nek di def bir assemblée nationale jërëjëf euh, ñu rafetlu bu baax euh, téway bi nga xamante amal nga ko fi tay mais dañuy waxtaan ci ay points yu ama am solo comme ni ñu la ko dégtalee précédemment waaye fi ñuy njëkkee rek moom moo di euh, ni ma ko waxee ci que euh, émission bi mooy euh, li nga xam moom moo di Revocap di réseau boo xamante ni ay volontaires ay volontaires la la la la ngànk la ëmb. tey ngeen yëngu bu baax a baax a baax ci li nga xamante ni moom moo ñu ganee depuis mars 2020 en quelque sorte officiellement ñu commencé compter suñuy nombre de cas nous avons une di amal touche participation ci li nga le ministère de la santé di def euh, naka petit ci de concrètement oui euh, merci beaucoup si ce Lightby. bi donc euh, REVOCAP le réseau des volontaires communautaires en appui au personnel de santé mm-hmm. donc bi mbas mi ñëwé fi mm-hmm. dañu ne autant nous nous nous avons ko def initiative COSM 23 donc mhm. commission orientation stratégie mouvement du 23 juin mhm. nous avons ne Abdourahmane Sow moo koy coordonné ñu autant ñuy mhm. sur les questions de démocratie autant avons ñuy participer sur la question de gouvernance des ressources minérales des questions de droits humains Nous avons suñu réew période soxla donc période sursaut nationale... la donc ni ñuy waxee aar démocratie Nous avons fait pour que nous puissions a salfaañee liberté kenn noonu itam la ñuy góor góorgóorlu jéem a ñàkk suñu askan ba kenn du feebar ci mbas mi. moo waral depuis 20 mars. ñu ngi sur le terrain ba suñu jonn yàlla tey tàyyiwuñu bàyyiwuñu. di xeex ñu fexe naka la fi mbas mi di jugee. Mhm. alors naka lañ ko xeexee naka lañ ci demee. Mhm. niñ ci demee mooy. bénévolat def te yàlla tax niñ ci démé moy engagement communautaire mhm. parce que dañuy jang xeexu mbass dañ koy xéx ci mbirum communauté bi askan bi mhm. ñoko mëna jël sen bop mhm. donc si lolu ñu constituer un groupe vraiment dynamique maa siy jaar di nuyu bép volontaire bi nga xamné ne consacré wu na temps pour que ñu mëna dem au péril de nos vies parce que bi nit ñi toogee seen kër ñun ñu won suñu cœur ñi ngi doon dem di waxtaan ak nit ñi di safonté saafonteeg ñoom ànd ak ñu mel ni professeur Seydi ñu mel ni Alioune Tine mhm. ñu mel ni ñoom professeur Nioro Ndiaye ñu mel ni mhm. ñoom Cheikh Oumar mhm. ñooñu ñëpp nga xam ne ku nekk da nga féete ci boor bu ne ci ginnaaw bi ko Abdou Diallo initié wee ak Abdourahmane Sow ñun ñu ñëw ñu doxee ci ñenti tank ñenti pôle pôle bi ñëk bi moy pôle scientifique vraiment moo ñu peut-être jural euh, satisfaction yu reuy nga xamné docteur Ibrahima Fall mo koy coordonner ku ci melni professeur Seydi si boppam mooy superviser les travaux ñu ci melni ñom professeur Massamba métier épidémiologique Massamba Diouf ñoo ngi woon ci biir euh, ñu am un pôle communication vraiment ma siy jaaree itam parce que souvent mhm. duñ leen faral di gis moy mhm. bép journaliste wala bép homme de média mhm. bép activiste bép blogueur buñu nous accompagner pour que ñu mëna diffuser suñu ay message pour que ñu mëna a waxtaan ak suñu ay askan pour que ñu mëna les sensibiliser donc ñu nekk ay volontaires yi nga xamné ñi ay volontaires virtuels lañ nekk ci réseaux sociaux yi di ñu jappalé di gëna amplifier message ñu am un pôle appui conseil baax na liggéey soo koy def nga ànd ci ak ay mag yi nga xam ne seen xel xarañ na ci ñu mel ni Amadou Tidiane Wan. Mhm. ñu mel ni ñoom Elentine. Mhm. ñu ñuy xelal ñoom euh, Aluntine ñoom Ndioro Ndiaye mhm. pour que bépp décision bu ñu mën a jël ginnaaw révocable peut-être ñi ko composé ay ndaw ñoo ci gën a ëpp mm-hmm. essentiellement mm-hmm. ñoo ci gën a ëpp baax na parfois ñun itam mm-hmm. suñu amee yenn xalaat yenn gis-gis yi ñu mën ci diisoo ak ñoom pour que ñu ñuy mën a xelal te xëy na tamit bokk na ci li nga xam ne booba tey ñu ngi sur le terrain à travers une stratégie bien définie parce que ñu bëri jugoon nañ di xeex Covid mais au fil du temps dañu bàyyi. Mhm. peut-être dañu bàyyi parce que dañu découragé peut-être dañu bàyyi parce que amuñu une stratégie peut-être dañu bàyyi parce que dañ ci ñëwoon pour effet de buzz mais nous, dañ ci mhm. parce que la stratégie était bien mûrie à travers le programme herc corona mhm. sama gox. Et continuer di ko ak pôle. bi nga tous les volontaires ma am chance coordonné ko. mais le pôle sensibilisation. donc niñ ci moi euh, liggéey ci biir pôle bi. Mhm. am task force am ay coordonnateur action terrain etc. Mhm. Mhm. pour que rek liggéey bi mun a askan bi le message yi ñu leen di diglé ñu mun dem. su jot plaidoyer ñu def plaidoyer à l'endroit du ministère de la santé. def plaidoyer nak ngir jappalé le personnel sanitaire. donc alhamdoulillah ñu ci sante yalla parce que li ñu gis tan yi. moy c'est une tendance baissière. voilà donc euh, comme ni nga ko waxee léegi honorable euh, pôle sensibilisation yow ya ko jiite. ci ci ci ci révocable mu doon euh, pôle boo xamante ni aussi pôle bu stratégique la parce que day dalay permettre nga mën a euh, xam euh, yan maanaam entreprise ngay am pour mën a wax ak askan wi comme ni comme comme ni mu waree Euh, ci wàllum xeex mbas mi toujours mais tey gis nañ ni ay également am na ay euh, activités yu bëri yoo xamante ni amal ngeen ko euh, lu ci mel ni ay joxe masque ak joxe gel hydroalcoolique ak yeneen yi yeneen ak yeneen yoo xamante ni ci wàllum xeexum mbas mi la mm. est-ce que tey en tant que volontaire également éprouvé ngeen ci ay difficultés yoo xamante ni xaw na nasaxal tuuti seen liggéey. oui xam nga liggéey moom liggéey mm-hmm. boo gis. Mm-hmm. am na am na ay jafeñ-jafeñ. Mm-hmm. mais itam. rawatina liggéey bénévolat mhm. def te yàlla tax def ngir sa askan djem parce que mhm. fi kenn mënul mhm. kuy góorgóorlu rek mo mo mo fi nek te euh, c'est vrai que amoon nañ amoon nañ ay difficultés mais ñun li am solo moy dañu mettre en avant les les les compétences humaines les ressources humaines parce que bo amé ay ressources humaines de qualité moyens yi dañuy suivre donc si loolu ñu ne ñun nous euh, cotiser. Nous avons fait levée de fonds pour nous mhm. permettre d'avoir mhm. 1 million. Mhm. Et 1 million, si nous avons pratiquement activité, parce que récemment, nous avons euh, dans le cadre de la vaccination nous mhm. avons un partenaire pour nous accompagner donc nous jëm mhm. nous ñun dañuy mhm. def te tax te def te nous tax donc si la nous ñu si euh, docteur Farez, euh, chaque semaine nous 2000 masques donc mars ba donc kooku noonu ñu ngi koy ci sant diko ko gërëm parce que lu ñu jox ci mas mhm. tolo nak

parce que dafa à travers les réseaux sociaux à travers aussi suñu collaboration le professeur Seydi mu ah ñi kat masques dina dina mais li am solo euh, képp ku gis ñun rek accompagner ñu muy waral nit boy def mhm. parce que mhm ni ni ñu naan yalla du. fay surtout ci cadre mbass mi nga xamanteni également lu ëlëm euh, askan wi la donc euh, vraiment euh, defe ñu jital aspect bobu nga xamanteni aspect citoyen aspect volontariat defe mom mo upp solo que peut-être l'aspect pécuniaire. xam nga man dama kay faral di wax dama naan Sénégal. ak mhm. suñu réew yi dañu néew doole. moy mhm. waral dañu wara gor gorlu ci mbirum bénévolat. Mhm. dañu wara gor gorlu ci mbirum volontariat. tay de fexé nañ ba assemblée nationale. xex nañ. Nous avons plaidoyer mm-hmm. une loi mm-hmm. sur le volontariat Nous avons peut travail de communication bi war mm-hmm. amo mais war nañ ko gën a parce que tey soo jëlee population sénégalaise plus de 65 sont plus de euh, plus de 65 à cent ay ndaw lañ. Mhm. suñ leen tàggatul si mbirum bénévolat parce que suñu réew yi ressources yi ñu am bëriwul. Mhm. xëy na ressources yi fiñ koy jëlé moy ci mbirum impôt fiñ koy mhm. jëlé moy ci dons yi ñuy may et cetera. suñuy xaar lepp ci état. du mëna du mëna soti. Motax ñuy wo encore suñu morom ndaw ñi té Yalla dimbali ñu ñu nekk député bi gëna ndaw. assemblée nationale. ci passe passe bobu. passe passe pour tabax sa réew parce que dama nan Sénégal su fu ku nekk góorgóorlu won ci sa quartier. ku nekk góorgóorlu ci sa commune. ku nekk góorgóorlu ci sa département. ku nekk góorgóorlu ci sa région. bu yàggee dinañ daj Sénégal té loolu nak mi ngi tambalé ci kër yi donc je pense que ni ci suñu ay mbirum jangalé ci suñu mbirum yarin dañ ci wara tagat suñu mm. ay xale. pour que ëllëg ci biir bu ñu màggee. ñu mm-hmm. am redevabilité parce que nee nañ balaa ngay xaar dara sa réew. Mm-hmm. xalaatal yow loo mun a defar. loo mun a defar sa réew d' abord loolu day tax sax euh, après ñu euh, rebondir ci question de citoyenneté et d' engagement euh, n' est ce pas citoyen bi nga xamante ni war na nekk point bu bi ci topp mais avant cela wax nga ko léegi campagne de vaccination bi également yëngu ngeen ci bu baax a baax a baax. waaw ma si jaare di nuyu di remercier vraiment aux IDEA, Observatoire de suivi des indicateurs économiques mm-hmm. en Afrique, de mm-hmm. développement économique en Afrique. Nga xam depuis mbas mi ba tey. Mm-hmm. moo ñuy ñu servi de partenaire technique. donc suñu locaux yeeg yëpp ñoom la utiliser don yi ñuy may sax fa la ranger ko. avons donc depuis lors bi bi depuis février. nous avons nañ ci mbirum campagne de vaccination bi. mais ce que nous avons jëmmal en euh, juillet nous avons fait génn troisième vague. ginnaaw mm-hmm. bi ñu artoo le 23 juin. Mm-hmm. ne gis nañ né sénégalais yi vacciné wuñ parce que boobu ñu ngi toll won suma djumul ci 500000 personnes. yu yu mm-hmm. ñàkkoo fi ci Sénégal. ñu lancer sunu campagne dem ñàkku ji ànd ko ak United Purpose. bu Sénégal pour djema wër ci dëkk bi yëpp djema wër ci Sénégal bi yëpp pour nous, nous pour am 2 millions de sénégalais vaccinés. Mhm. fi ak décembre. ga mhm. mais suñu contribution la xeyna tay avons ku nekk bu jugone mhm. am objectifs donc si lolu ay campagne de vaccination la. si lolu ay journée de sensibilisation de vaccination et de distribution de kits sanitaires la. si lolu ay échange la si lolu ay caravane de sensibilisation la. donc si lolu la ñu nekk. nañ ci suñu volontaires pour que nous puissions vers ça. mais yombul parce que euh, peut-être nous nous tambalé la. nous mhm. nous tambalé stratégie de vaccination bi la une mhm. communication bi war itam dafa mhm. de xaw soxé mais nous ñu ngi continuer. au fur et à mesure ñuy adapté wa di stratégie di parce que dañoo tiital askan bi. té bo xé tiit les gens parce que gis nañ ni askan bi bañuñu vacciné vacciner mais nous hésiter dañu hésiter parce que sur certaines questions mais hésitation aussi c'est parce qu'il y a une campagne euh, assez euh, en déphasage avec euh, la réelle sensibilisation. Eh, eh, effectivement parce que nous avons fake news yi. Mhm. information yu bon fi. Mhm. communication boo communication mhm. donc je pense que loolu nous nous avons proactivité. Nous nous nous def si def top légui nak ñun mënuñu luddul parce que duñu état duñu pouvoir mais comme si dëkk bi lañu dëkk dinañ dem and ak sunu ay médecins and ak sunu ay professionnels de santé ñu waxtaan ba léra parce que ñu bëri luñ lay wax dañ la naan tay lan mo tax euh, euh, en moins d'un an ñu am vaccin té fatini nañ ne bi covid bi ñëwé dafa laalandoo état yépp donc laa sax état yi gëna am doole ñi nga mm. xam ñun ñoñu ëpp tay ñoñu dañuy góorgóorlu mm. parce que dafa laal seen euh, dem ak dikk mm. dafa laal seen économie dafa laal seen santé mu ngi yóbbu seen ay mag ñoñu dañuy góorgóorlu def moyen yi war mm-hmm. pour que nit ñi mëna a féex mm-hmm. mun na parce que vaccin bi day féexal comme mm-hmm. covid day ray vaccin bi dafay aar benn ñaar li taxone peut-être nit ñi di hésiter dañ la koy wax gis nañ am mm-hmm. alors que information yu bonne la yo xamné nguur gi mm-hmm. wala ñi nga mbirum mm-hmm. anticiper mu ñëw troisième vague bi nga gis ay vaccin yu manqué donc je pense que comme troisième vague bi jaar fi nañ ko leçons parce que épidémie la mel di ñëw donc. virus bi aussi di muté. virus bi day muté parce que mm-hmm. yow ni ngay def ba xeex ko stratégie yi ngay def. Mm-hmm. ba xeex ko ba moom. ba faagaagal ko moom tamit noonu lay defee ay stratégie wam ba mun a toog donc moo waral bépp disposition buñ mhm, jël mhm. gis nañ ko wax nañ ne oxygène bu mu manqué et mhm, cetera ni ñu góorgóorlu ba bu fekkente ne parce que mën nañ ko njort quatrième vague am na ñu fexe ba jël vraiment toutes les mesures idoines ba dara duñu be yàlla yàlla nañ ci yàlla musal en tout cas euh, mais wax nga ko léegi euh, da ngeen amal campagne bu am solo ci lii di wàllum xeexu mbas mi semaine dernière yëg nañ ni euh, à travers euh, communication ou euh, ministre bon communication quotidienne ministre de la santé ñu wax ñu ne zéro cas loo xamante ni mosu fi woon am mu doon quelque chose vraiment d'inédit tey c'est un bi ngeen amal vraiment ñu bëri remarqué nañ ko sentir ngeen ni au moins am ngeen ben impact bo xamante jouer ko par rapport euh, au résultat que nous avons actuellement. oui am am nañ am nañ impact parce que. vous devez être fier je veux dire. oui euh, ñun lepp lu ñu defal suñu rew rek. Hmm. suñu gar la d'abord hmm. Budul won dara dara dara budul won député budul won dara lépp luñu ñu suñu sunu réew mhm. sunu warugar la parce que mhm. Covid bi tay dafa laal suñu ay habitude mënatoo nuyoo foo mhm. nekk yaa ngi takk sa masque etc. mu laal sa économie créer ay pauvre conjoncturel tay ñepp ko gis sénégalais bi kanamam belliwul parce que dafa ñàkk xaalis té ñun gis nañ ñu ñu mel ak yoy donc je pense que euh, bu ñu demee tey ba dégg zéro cas dañu ci am satisfaction wanté fofu lañu wara gëna farluwaatee foofu la ñu war a mën a bañ a bàyyeeku parce ñun d'habitude sénégalais dafa gaaw doyul am nañ mm-hmm. zéro cas rek ñu foog ne masque yi dañ koy sànni mm-hmm. moo waxaat ko di ko biiralaat sama mbokk sénégalais yi mm-hmm. nañu dem ñàkku ji nañu continuer sensibilisation surtout la presse continue yi ngeen doon def si covid su ngeen ko mënee di def di ko gën a faat parce que sénégalais moom nee nañ benn nopp la te benn nopp da nga koy jiitu si nopp bi donc je pense que ne waruñu bàyyi ba sénégalais yëpp tàyyi wala ba ñu amaat ay ay décès ñu gën a renforcer waat communication mais lépp lu ñu defal suñu réew sentiment de satisfaction et la te ñun fii week décembre. Mhm. ñu ngi fi ñu ngi continuer di fexe ba askan bi mën mhm. a dem ñàkku ji. mais itam euh, ñu fàtte ni ñàkku waaw mais tamit mesure barrière ci la. maanaam takk masque maanaam raxasu. maanaam dànd. d'accord am na euh, loo xamante ni également euh, seetlu nañ ko ci maanaam mbas mi bi mu ñëwee. Mhm. mooy wax nga ko léegi habitude yi changé na li nga daan def peut-être xeexu mbas mi daa dootu la ko may war na ñu mën a interpeller à que ñu am beneen type de comportement du.

Euh, comportement des jeunes à chaque fois donc nga koy biral assemblée nationale dañ lay dégg ngay wax ci ndaw yi di wax ci li nga xamante aussi war nañ ko amal comme taxawaay euh, face à certaines habitudes yo xamante ni war nañ ko bannir euh, tay engagement boobu est-ce que tay japp nga ni don na loo xamante une réalité lay doon. waaw une réalité lay don ci kaw ñu bëgg ko. Mhm. parce que damay wax euh euh ñun peut-être wax rek lañu ñu mën mais buñu passé paasee ci wax. Mhm. ñun liñuy wax nay fekk ñu koy jëfee benn tey man mënuma nekk assemblée nationale chaque fois may plaider engagement citoyen civisme hmm. discipline ponctualité rigueur hmm. etc. cetera man ma génn di wàcc sama yoon hmm. donc moo tax ñu nekk assemblée ñu bañ fa nekk assemblée dañoo nekk ay modèle te dañu war continuer di ñàkk suñu askan parce que Sénégal sans que rek la ma benn pas ñuy waxtaan mu ne ma Sénégal réew mu neex defar la dëgg la réew mu neex a defar la parce que réew moo xam ne du fa dégg si bot di konte xeet mhm. maanaam yow lii nga kii moo gën waaso bi moo mhm. gën mhm. réew moo xam ne ñëpp a yéenante jàmm balaa nga koy xam pat jot balaa nga koy xam korité sunu mbokk chrétiens yi mhm. dem si sunu mbokk musulman yi musulman yi mhm. balaa nga koy xam Sénégal di football mhm. balaa nga koy xam nga am naqar balaa nga koy xam nga nekk si ay jafeñ-jafeñ donc réew moomu réew mu neex a defar la lii xaw a manqué mooy peut-être mbirum gouvernance ak leadership tey dañu soxla leadership boo xamante ne su nee sénégalais yi wàcc leen heure moom muy wàcc heure su nee sénégalais xëy leen heure mom muy xey heure su sénégalais yi bu leen jublang mhm. mom duñ jublang bu len bu né sénégalais yi réew mhm. dañ ko wara yaxanal mu koy yaxanal parce que kuy digle day fekk day fekk mhm. nga set té ñun si lool lañ nekk di tabax nuñ koy tabaxé pas-pas si lool lañ di tabax nuñ koy désintéressement parce que ñun dañuy am chance bok ci ay kuréel li nane les mouvements à foulard muy moniteur de collectivité mm-hmm. éducative mm-hmm. CVAV Cœur mm-hmm. Vaillant âme vaillante loolu ñu tàggat ñu si bi nek ndaw di ñu wax né la ponctualité est la reine des politesses manam buñ ñu nee huit heures huit heures mu fekk ñu ci ñu ñuy wax né lepp lo defal sa rew dang ko wara def ak désintéressement parce que moy sa warugar moy waral ñuy gorlu di di ànd ak suñu mbokk jeunes yi nga xamné dañuy yëngu ci mbirum engagement citoyen fuñ dégg rénover école dañuy dem donte loolu état lañ ko denk moy mhm. waral buñu assemblée nationale itam mhm. duñ leen may dara. Mhm. di len né ah ñun kat jël ci sénégalais dañu bëgg mu feñ buñ école ñu gis ay école yu mëtte buñ abri provisoire ñu fexé ba abri provisoire dootu fi amati. buñ table banc table banc parce que. tey ñun difficulté yu ñu dund mhm. ñaanuñu yàlla mhm. suñu ay rakk dund ko mhm. te nag mooy liñ ñu jox responsabilité lañ ñu dénk suñu mission sacerdoce la suñu mission jaamu yàlla la pour que difficulté ñun yi ñu nekk suñu rakk yi bañ fa nekk loolu nag dafay laaj engagement

nañ ko jëfee mais également euh, li nga wax moy jafé jafé yi nga xamante aussi am nañ ko ak ñi nga xam ñoo ñuy jité problème de leadership également dafa posé wu vraiment donc euh, defe message bu ama am solo bo, xam ndaw ñu mëna mais toujours euh, wax nga ko léegi mais dañuy des assemblée mais ci benen volet muy mm. volet politique bi parce que gis nañ fa jamono yi ñu génn gis nañ fa coow lu lool loo xamante ni seen ñaari collègue donte sax boo xooleen groupe parlementaire ñu ngi leen di tudd ci ay euh, passeport diplomatique yoo xamante ni vraiment euh, ñu bëri sax euh, nga baal ma ci terme bi mais ñu ngi naan càmm te xam nga loolu defe naa image u assemblée nationale lay ternir yow nga nekk ndaw am taxawaay boo xamante ni ñëpp gis nañ ko fa ca ca assemblée ca pencum ndaw réew ma d'ailleurs sax yaa ngi bokk ci commission bi nga xamante ni moom moo ëmb fukk ak benn euh, nit yi nga xamante ni député yi nga xamante ni tabb nañ leen pour ñu déglu ñaari député yooyu la tey naka nga naka nga dundee profondément euh, ja affaire boobu noonu. waaw euh, lu lu lu lu lu metti la parce que dañ koy dañ koy wax lu waay rendi mhm. si sa loxo lay nàcc mhm. mais soo ko wiccaxee mu tis sa askan. Mhm. mun nga def benn affaire foog ne bu ñëwee si yow rek lay lay yem. mais dina dem ba laal euh, bépp day mel ni rek tey benn journaliste suñ ko tooñee. bépp journaliste fay juk manifester mhm. euh, soutien wam wala bépp journaliste bo xamné def na lu mu warul def yow mi nga xamné da nga bok ci corps bi wala mhm. yow mi nga xamné da nga fay liggéey daf mhm. lay metti mais itam ku nekk sa responsabilité individuelle la te lu tax mu waroon mun a ñàkk parce que dañ ne le député est un représentant qualifié de la nation lépp lu muy def intégrité am da si laal mooy waral ñu naan la honorable député mooy waral ñu lay jox passeport diplomatique mooy waral nous euh, avons bépp mën dem nañ la mhm. égard bi titre mérité mhm. parce que ay sénégalais nous mhm. renoncent ci pouvoir pour nous et man itam bokk na ci ñi ñu tan pour tok ci commission ad hoc bi. Mhm. inshallah allahu rabbi mhm. dinaa fa togal askan bi. Mhm. dina fa togal deug dina parce que tamit ñu ñu wax ko askan bi ñu ñun ñu fa pour juger leen. du ñun ñoy atté fa am pouvoir exécutif. am pouvoir législatif ñun fi ñu bokk. am pouvoir judiciaire. mais ñun lepp lu ñu mëna def. ba yoon mëna def liggéeyam. et je pense que ba mbir mhm. parce que suñu nos collègues, tey xëy na loolu la ñu animé wu. Mhm. volonté boobu fexe ba dëgg jib. Mhm. ñi nga xam ne dañoo tooñ ñu. sanctionné leen ñu àtte leen ni mu waree ñi nga xam dara ñu ñu ñu féexal leen mais itam euh, jàpp naa ne yi mbir yi dafa dafay mooy li ma la bëggoon wax léegi Mariam gis nga euh, bon c'est pas la première fois quand même ñu dégg assemblée nationale ci ay maanaam ay dérive nga baal ma parce que xëy na sax taxawaay bu mat nga fa am ak ñeneen ak ñeneen mais am na ci ñoo xamante ni xëy na amaana à chaque fois bu ñu génnee wax walla ñu jëf rekk euh, askan wi ñu ci bëri dañuy dal seen kaw donc loolu euh, ni muy répété woo tout temps nii est-ce que jàppoon ni dina dem ba décrédibiliser concret euh, définitivement assemblée nationale. xam nga institution bi moom dara du ko décrédibiliser parce que ñun dañuy ni ma koy faralee di wax. ñi mm-hmm. liggéey assemblée nationale. Mm-hmm. ñun ay locataire lañ. Mm-hmm. yéen yéen

ñuy fàttali sunu ay nawle député mhm. que ne askan bi dafa renoncer ci seeni pouvoir manam mhm. dañ denk manam mhm. waru ñu am yenn comportement yi ma le 25 juin ba le passé mané les sénégalais commencent à être tampi des hommes politiques parce que ñu la fal denk la yow nga ñëw di def lo xamné sa askan daf la ci xép lépp lo xamné dañ la fal denk la ngay def pour sa askan xép la rek je pense que wacc nga sa yoon et lolu nak ñun tay ñun ñoo wara a mën a góorgóorlu mhm. mais itam fexe mhm. ba ñu am une exigence citoyenne forte mhm. ba du n'importe qui la ñuy yóbbooti assemblée ñu xeex ba ñi ñuy yóbbu assemblée mm-hmm. nationale mm-hmm. ñu nekk de vrai vrai mm-hmm. vrai représentant du peuple ñi nga xam ne dañ fay teewal askan wi teewal si toog di fekkee waxtaan yi di ko teewal si bu ñuy budget ñu mun ko yëndu ba euh, euh, à la minute près xam lan la ñuy nar a defal teewal ngir saytu bu ñu génnee xaalis wala bu ñu hmm. d'accord ñu génne hmm. xaalis ci gafaga réew mi fan lay dem d'accord toujours dañuy des ci politique mais ci dernier point bi euh, hmm. foofu la ñuy euh, jeexalee sax daanaka émission bi jeex na parce que bon trente minutes la traditionnellement loolu la mais xam nga yow comme invité spécial nga amaan nañu cofal la benn 5 minutes bu ndaw nga am loo ci xabal mais tey dañoo dem euh, ba nekk ci maanaam Euh, cadre politique boo xamante ni ñu ngi nemmee ko ay scènes de violence yoo xamante mu ci am souvent yow euh, politique nga mais également balaa ñuy soulever lool sax ñu gis ni également am nga taxawaay bon dañuy fàttali ne rek bi nga amee ñaar fukki at ak euh, juróom-ñaar ci nga ñëwee fële daal di remplacer kii di maître ay Tall Sall bi nga xamante ni nekk na ministre des affaires étrangères mais taxawaay bi nga fa am aussi ñëpp gis nañ ko. nga doon fa ndaw am lu bëri loo xamante ni da nga ko fay plaider tey. Euh, bu ñu demee ba nga euh, tollu ci ben niveau bo xamanteni ñu sénégalais ñu ci bëri ñu ngi bayyi xel euh, ci li ngay wax lolu nonu au fond de toi nan nga koy dundé politiquement. ak ak ak statut politique bi nga xamanteni am nga ko aussi. waaw euh lolu ñu koy dundé moy di ko dund ak humilité. Mm-hmm. di ko dund parce que ñun suñu mission moy servir. Mm-hmm. jaamu soxlawu askan bi mm-hmm. maintenant pour que ñu jaamu soxlawu askan bi dañ ñoo waajal dañ ñu waajal si suñu kër yi ñu jóge góorgóorlu fexé ba ñu am yar yi gën ben ñaar ñu waajal ñu si parti politique yi nga xamné fa lañ doon militer parce que am nañ chance su militer fuñ nane parti socialiste ou dañ ñu doon wax politiquement engagé mais techniquement compétent ñu am luñ nane école du parti ñu ñuy yar si lan moy loi lan moy charte lan moy statut lan moy règlement intérieur ba kérok ñuy le choix de dañuy appeler Aïssata bi ñu primaire. 2014 mhm. au parti socialiste avons une chance peut-être que nous fukk. yi mais mais mais en fait souligner nous ban parce que ay maître Aïssata Talsal, euh, mouvance bi te yow euh, ci mom nga toppoon et cetera ban position concrètement xam nga xam nga loolu wax naa si waxati si et sénégalais yi hmm. ñoom xam nañ man fan la bok hmm. Oser l'avenir la bok hmm. membre fondateur Oser l'avenir la ga amoon na désaccord parce que nit du ragal deug ga man néna naa d'accord ma woon mais téréwul bama waré tak écharpe député bi lu ak coow lu si mënti am Aïssata sama yaay lay mus a doon kenn du mu mus a dégg ma wax ko lu ñaaw man nag damay def politique mhm. lépp lu ma xalaat wax ko muy dëgg dama koy wax parce que kër gi ma jóge mhm. bépp xalaat bu ma am dañ may bàyyi ma wax ko dinaa ko wax ci yar dinaa ko wax ci teggin mais su ma d'accordul itam du ma rus am yaraa nga ne d'accordu ma may war a may jaare di rendre hommage ay Tall Sall parce que xëy na tey ñun àndoon nañu ñu bëri euh, biir partie socialiste man ma tànn ne damay ànd ak moom biir Oser l'avenir nekk membre euh, fondateur Oser l'avenir mhm. te tey peut-être euh, coow li bëri na mais niñ ko denk ministère des affaires étrangères ma jaari ci rek. Mhm. tey dama bëgg gis nga nit bokay démé ba di ko xarab. Mhm. da ngay convoquer liñ ko denk ndax mi ngi koy def bu baax wala miñ ko. Mhm. bi may joxe rek exemple ñaari exemple lay joxe. bi si njëkk mooy taux d'exécution budgétaire ministère des affaires étrangères en 2020. mi ngi toll woon ci 76 tey en 2021 bi exécuté budget 30 septembre nous hmm. ngi 92 pour dire que nous, euh, euh, nit ki li am solo li parce que nous diplomatie bu rayonnante lañ mi ngi daanu mi ngi et ñun en tout cas ndaw yi nga dañu l'avenir ñun man mi nga l'avenir parce que ñun dañ wax bi nga nationale da ngay parti teewal sa mbubbu dëkk si lolou lañ nekk di def té tamit ñi ngi ah, ñi ngi koy encouragé si liguey bi métti na nak parce que jigen la dañ koy xaar ci ay résultats duñ ko bal dara mais ñun itam dinañ nekk si wétam gungé ko ba lépp li nga xamné mi ngi kay mbëbët ci Sénégal yàlla akom parce que fi wax bu bon wala nit ki di la critiquer mënul mhm. mais li am solo mooy nañ la sént si gaalu xaj mhm. mais buñ la fa fekk ngay lekk d'accord euh, un mot sur euh, maanaam scène de violence yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko fan yi ak également bu fekkee am nga message bo xamante ni yaa ngi ko bëgg lancer euh, sa ñooñu politique yi également surtout ñi nga xamante ni ñu ngi tendre di dem xam naa ni yow bëgg goo nekk maire ah yëgaguma ko man waaw li am solo man lépp lu may def nee naa damay jël temps liggéey ko parce que xëy ñi ñi dañuy profito ci ay situation rek pour donc bu boba nak nga am nga indi sa bopp problème indi ñi la jital problème japp naa ne

si mbirum ñi ngi jëm ci élection locale yi gis nga dama koy wax di ko bëralaat sama surtout sama mbokk ndaw ñi suñu ñoñu politique yi fi ñuy dajee di fa waxtaan duñ ko fekke kon nag bu ñu nangu ñoom ñu nekk ci seen ay xeex ay positionnement yu ñu ciy dugal parce que ëllëg ci biir dinañ la woo laaj la képp ku ci gaañu yow yaay ñàkk dinañ ñëw sa dëj dinañ la jaale après ñu fàtte la parce que événement masse 14 jeunes. 14 sénégalais nous nañ ci. Mhm. mu ngi ni fenn. Mhm. té nak suñuy dañu investir suñuy wajur dañ ñoo yaaka mhm. kon bu kenn nangu. ñuy ci violence. parce que bu ñuy nek seen jam duñ ko fekk bu ñuy woté seen compromission duñ ko fekke kon nak bu ñu kenn kenn kenn kenn si violence te violence likoy indi amoo argument violence li koy indi mooy peut-être préparé wuñu la parce que débat local c'est des enjeux locaux ni ñu wax ci sunu gox yeeg gox goxaan yi naka la ñu war a def ba ba ba defar ko mhm. nu ñuy def ba sunu problème yi nga xam ne koy dund au niveau local mhm. tay on politique yëpp a taal seen téléphone mhm. mais il y a de cela un an deux ans ah gisuñu woon kenn léegi nag ñun loolu lañ fi bëgg jëli jële mooy ñu ko la ñuy def ba am ay leader yu nga xam ne dañuy yërëm askan bi dañuy Euh, euh, dundal gox bi. ba pare nekk ay ndaw mais pas di dundal nekk ay ndaw mm-hmm. donc loolu mooy su nekk sunu combat. Mm-hmm. di wax suñu mbokk ndaw yi. Mm-hmm. ni ñu gëm seen avenir. na ñu xam seen bopp na ñu xam ñi ñu doon. na ñu bañ a nekk. Nous avons des dañ instrumentalisés bu fallu ñu mm-hmm. donc je pense que né li am solo mooy mm-hmm. ñu gëm suñu réew parce que mm-hmm. buñu nous kenn réew mi mënuñu fi réew mi te mën te ay ndaw dinañ taxaw en tout cas ñun ñi ak pas-pas ak fulla ak fayda ak jom ak xam li fiñu doon xam pour tabax ko jërëjëf maa ngi leen di nuyu di di leen sant. Mhm. di nuyu bépp téléspectateur bi nga xam ne doon nañu suivre. Mhm. di woo encore une fois suñu mbokk ndaw ñi. Mhm. si jëf. bàyyi ay wax parce que mm-hmm. wax dalay tardel tardeel mm-hmm. alors que jëf daf lay jëmalee kanam. jërëjëf ñu jaajëfal ko bu baax euh, également mu nekkon euh, Mariam Soda Ndiaye euh, en face de Dakar Actu et de tous les téléspectateurs ci émission l'entretien mu nekkon également ko xamanteni ku ku ku am pass pass la ci liguey bi nga xamanteni mu ngi koy def feulé ci assemblée nationale nekk également coordonnatrice su pôle sensibilisation au niveau du REVOCAP ñu amone mbégte bu baaxa baaxa baax a di la dalal xam ni du doon sunu. Euh, manam jakarlo bu mujj parce que yag nañ ko mbéber sax mais ak kii xat-xat yi àddina donc euh, il fallait que ñu euh, tok ba tey pour mën ko manam amal ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la remercier encore une fois ci sa disponibilité di la féliciter également mm. ci liggéey bu mucc ay bi nga xamanteni yang koy def au niveau de l'Assemblée nationale di leen remercier yéen également sunu mbokk téléspectateurs Dakar Actu té di len jox dig dajé ci beneen ayubés ak benen invité jërë ngeen jëf